الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الإخوة المؤمنون لقد تناقلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أمرين مؤسفين يقتضيان منا أن نراجع سلوكنا لنصحح منه ما يحتاج إلى تصحيح أما الأمر الأول فهو وفاة عدد من الأطفال غرقا في غضون أيام قلائل في بعض أحياء طوبى ونحن لا نشك في أن الموت لا يكون إلا بأجل مسمى لكننا نود أن نتواصى بمزيد من من العناية بالأطفال إن الأولاد أيها الإخوة المؤمنون منحة من الله تعالى وزينة للحياة لكنهم في الوقت نفسه امتحان واختبار وقد بين الله ذلك في مواطن عديدة من القرآن الكريم وهذه الصفات المجتمعة في الأولاد تجعل مسؤولية أولياء الأمور كبيرة وتتمثل هذه المسؤولية في تربيتهم وحمايتهم بطريقة تجعلهم عبادا لله نافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم وتحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة لكن ما نشاهده من كثير من أولياء الأمور هو التقصير في هذه التربية وفي هذه الحماية فكثيرون منا حين يغيب عنهم أطفال ممن هم تحت مسؤوليتهم لا يكلفون أنفسهم عناء البحث عنهم وعن الظروف التي هم فيها بل yatanafasuuna suadaa li taxallusihim min machaakilihim li fatratin muayanatin ala aqal noo ngi sant yàlla di julli ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yàlla mu doole ko xewal ak mujj moom ak njabootam ak saxaabaam ak képp ku jaar ci aw tukki mbokk yi jamono weesu jumtukaay yi tasaare ay xibaar tasaare nañ siiwal nañ yaari mbir yu doy waar yu metti mbir yooyu tey laaj nu xoolaat sunu bopp xoolaat sunu doxiin ba lu ci jar jubbanti nu mën ko jubbanti mbir mu njëkk mi mooy ay xale yu lab ba faatu ci ay quartier yu nekk ci biir dëkk bi xam nañu ne faatu moom ku ko def rek ab diggam dafa aks waaye nag dama bëgg a dénkante rek euh, gën a toppatoo xale yi gën a jox yitte xale yi njaboot gi kat mbokk yi xéewal la bu nu yàlla jox ab taara la itam buy taaral lu ndukki loolu alquranul karim yàlla wax na ko ci ci béréb yu wute waaye itam nag njaboot giit nag nattu la nattu yàlla danoo jox njaboot ngir nattu nu ci alquran loolu yàlla wax na ko ci béréb yu wute loolu daje ci njaboot gi nag mooy doon xéewal doon ab taar waaye doonut natt loolu moo tax ba warugaru kilifa yi doon warugar wu mag ci njaboot gi warugar bi nag génnul rekk yar leen ak aar leen ak aarleen ba ñu mën a doon jaami yàlla mën a doon itam ñu amal njariñ seen bopp amal njariñ itam mbooloo mi ñu nekkal moo leen di may itam ñu mën a am tafek àddina mën a amuk mucc itam boo ëllëgee ca àlaaxira kon warugar woowu moom la kilifa yi di yore xale yi moom lañu ñu ameel xale yi waaye nag li ñuy gis di ko seetlu mooy ñu bari ci kilifa yooyu yi xaw nañoo gàttañ ci wàllu yar bii ak wàllu aar ji xaw nañ ca gàttañ ndax ñu bari ci noonu xale bu ñu yilif buñ ko gisul du leen jaral di sonn ci di ko wër di jéem a xam fu mu nekk ak ci lu mu nekk am na ñooñ sax day mel na dañ koy sant yàlla bu fekkee toog nañ gisuñ benn xale bu leen di bu bu nekk seen wet di leen lakkal wala di lëjal ci niñ koy jàppe ñoom ba fekk waru garu kilifa yi moo ñuy sàmm njaboot gi koo ci gisul diir bu xaw a gudd tuuti nga jéem a seet fan la nekk ak nu fa nekke waaye koo gisul nga sante ko yàlla ngir jàpp ne dala noppal lëjalu la loolu ak gàttañlu la ci aar gi nga xam ne warugar la wu kilifa yi ameel xale yi loolu mooy mbir mu njëkk mi meneen mbir mi it mooy li jumtukaay yooyu siiwal ci lu yàggut muy kàddu yu jóg yooyu léeg-léeg muy faral di jóg ci ñoo xam ne dañuy boole seen bopp ci yoon wi muy doon kàddu yoo xam ne kàddu yi ëppal la ci sëñ bi di ko yóbbu fu mu yóbbuwut boppam di ko bëgg a def lu mu doonut léeg-léeg kàddu yooyu jóg bu yàggut am na ci lu jógaat loolu nag dëgg-dëgg buñ ko seetloo day mel ne ku koy def day diingat sëñ bi da koy diingat ndax sëñ bi li mu wax ne moom la ku ne ko leneen la da ko weddi da ko weddi da nga xamul sa bopp waaye nangam nga loolu lay firi daf sëñ bi nag jarut a ñemee noonu jarut a ñemee ba di ko wedd ak di ko sosal di soppi am ngërëm ngërëm mooy yeesal lislaam moo ko taxoon a ñëw waaye andiwul lenn loo xam ne dafa bokkul ci lislaam ngërëm mooy musta jàppe boppam lenn lu dul jaamub yàlla liggéeykatub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moom la bind noonu la doon doxe ñim yar itam ci loolu la leen yar kon bu nit ñëwee bëgg ko def leneen dëgg-dëgg loolu yàpp ko la yàpp yàpp ko la te foog naa nag jëru tayab ku mel ne moom jëru tayab noonu ñaan yàlla mu defal ñu waat nag àllaaxira musal nu ci sawara sàmm na sunu ngëm ubbi nu bunt yiw yi soob nu ci njub may nu fan gudd ak wér mottali sunuy mébét may nu mujj rafet الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها الإخوة المؤمنون إن الأمر الآخر المؤسف هو ما أذيع مؤخرا من الدعاوى المنحرفة التي تغالي في الشيخ الخديم رضي الله عنه وأرضاه وترتفع من حين لآخر من بعض من ينتسبون إلى المريدية ومن العجيب أن يتجرأ أناس على محاولة تغيير الحقائق المتعلقة بالشيخ القديم رضي الله عنه وأرضاه وقد حفظه الله وحفظ دعوته فمكنه من كتابة كل ما يريد أن يعرفه الناس عنه وما يريد من أتباعه كما مكنه من تربية جيل كامل على ما كان عليه ليعلم كل منا أيها الإخوة المؤمنون أن الشيخ القديم رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي بما هو أجنبي عن الإسلام ولم يعتبر نفسه في يوم من الأيام غير عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ذللت عابدا خديما للرسول من عام أيسش إلى عام الرحيل